inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna ala nabi ya ayyuha alladina aamanu sallu alayhi wa sallimu taslima bisimilah mbokki internet yi ba tey ñu ngi ak yenn fii ci sàmm ci bésu salaatu ala nabi bi ñuy amalee kër sëñ Tuubaa gi ba tey ñu ngi toog ak sëñ soo Seck moom mi nga xam ni moo doon def jàllale première partie conférence bi ci salaatu ala nabi ginnaaw bi mu fa waxtaanee waxtaan bu am solo mi nga xam ne egg na ci mbokki jullit yi nga xam ne ñu woon ci baas bi moom sëñ Moussa Seck la ñuy teewlaat fii mu xamal ñu tu tuuti salaatu ala nabi boo ko soññ ci jullit ñi wax ñu baax ci njëriñu salaatu ala nabi bu ko defee ku ne am loo yóbbu sa kër. aouzu billahi min sa rajim bismillahi rahmaani rahim. salaatu wa salaam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi. Euh, bis bi bis bu rëy bu am solo la ndax damay wax ne sax ak jagle la moo tax damay wax mbooloo mi leen yéen ëhlu salawaat ngeen tudd ndax daje ngir ab bés boo xam ne dañ koy yendoo màggal salaatu ala nabi ak waxtaanee sallallahu ala muhammadin ngëneel yi ci nekk ak yeneen salawaat yi lu am solo la dafa mel ni loolu euh, xam taal bu Serigne Touba boyal la salaatu ala nabi Serigne bi daf koo fonk mën naa wax na jaamu yàlla yëpp moo ci gën a foor loolu itam ay lay yu leer ndax loo xam ne mboolem xeeti jaamu yàlla yi suñu borom da koo digle waaye du ko def waaye yàlla dafa wax ne inna allaha wa malaykatuhu yusalluuna ala nabi ya ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman yàlla ak ay malaykaam dañuy julli ci yonante bi salaa salaam mu wax ne yaa ayyuha alladina amanu loolu fi'lu amrin la koo digle ba noppi nag euh, mu mu daari la dafa nekk ak mustaqbal suñu borom dafa julli ci yonante bi salaa salaam mook malayka yi waaye dañuy wéy di ci julli ilal abad kon loolu lu kawe la te gis nga sëriñ bi ni mu ci wax wax na ne eh, amma salaatuna ala nabi yi mu ne suñu julli yi nga xam ne dañ koy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam muhammadin xayri bani luway muhammad mi nga xam ne moo gën ci giiru luway di xayru naas gën ci nit ñëpp nee na fëx ma tamasakta bi baada ada li fardi bi na nga xam ne lépp loo jàpp gannaaw defi farata yi julli bi sallallahu alayhi wasallam moo ko gën a màgg mu wax ci lu bari garanti gi muy garanti nit ki yóbbu ko ba mu egg ci yàlla fara ay bakkaaram may ko ngërëmul boromam texeel xeel ko ëllëg yowmal xiyaam jegeñal ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bis penc ku ëpp lu mu julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam dañuy natt sa kër ak këram yaay gën a jege kër kookii sëriñ bi wax ne képp ku bari julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam mbugalum bàmmeel doo ko am euh, ki gën a jege yàlla mooy ku ëpp lu mu julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne inna awla naasa bi yowmal xiyaamati aksaruhum alayya salaatan ki gën a yaay ci man ci nit ñi yowmal xiyaam mooy ku ëpp lu mu julli ci man julli ci yonent bi sallallahu alayhi di lu bari njëriñ Euh, biñ ci tànnoon nag tey di ko waxtaane mooy sallallahu ala muhammadin dafa nekk julli bu gàtt ba noppi te bari ay ngëneel lool waaye julli yëpp dafa am lu ñu bokk bu ci nekk nag am lu mu beroo na julli goo xam ne boo ko doon def yonent bi salsam boo faatoo moom moo lay gàttandu dugal la aljanna moo lay ramm moo lay gàttu ci gàttandu ci bàmme am na salaatu boo xam ne boo koy def yonent bi salsam moo lay tërbiye boo ko defee da ngay am yoolu ku eh, jàng téeméeri junni kaamil sëriñ bi indi na ko ci duru samin allahuma salli ala muhammadin bi adadi anfasil maxluqaat allahuma salli ala muhammadin bi adadi ashhaari almawjudat allahuma salli ala muhammadin bi adadi xurufi lawxi wa daawat allahuma salli ala muhammadin bi adadi albidayati wa nihayat min almahdumi walmawjudi ila abadi al abadi wa salla allahu ala xayri xalqihi muhammadin wa alihi ajmaina waxtu woo ko defee dañ lay bindal yoolu téeméeri junni kaamil yu ñu nangu nga xam ne julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yiw yi ci nekk kenn xamul nu mu toll xam nga loo xam ne ci diir bu gàtt rek nga koy def ñu xaymaal la ci téeméeri junni kaamil ba noppi te yëpp doon lu ñu nangu loolu kenn mënu koo amee ci lenn lu julli ci yonent bi saasam loolu bokk na ci lay yi wane ne moo gën a màgg ci xeeti jaamu yàlla yi beneen layu ñaareel yi mooy suñu borom ci xeeti jaamu yàlla yëpp da ko digal jaam ñi waaye du ci def benn moom bii rek la ànd ak jaam ñi di ko def loolu mooy layu ñaareel bu ñetteel bi mooy garanteel gi muy garanteel nit ki euh, aljana nga xam ne gis nga Sëñ di wax ne limaam Sanusi wax na ne euh, moom sax moo kawe am sëriñu tarbiya bi annaha bi annaha tuxni anil murabbi li jës bihi lfataal yi xaru bil bi maanaam day xëcc nit ki ba mu jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtu woo ko barilee bokk ci ay soppeem bokk ci ñi ko jege te loolu salatala na bi lim ci mën a mayee leneen mënu ko bés penc ba dañ lay boole ci saxaaba yi nga xam ne ku la gisoon ci jamono bi nga bokkoon dalaa naan waaw yow lu la indi fii waa saxaaba yi ñëw ne la yow ci nun nga bokk sol seen i manto dem ànd nit ñëpp di wax kii lu ko yóbbu fee fekk da ngaa bari loo julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw yii nag di sallallahu ala gàtt la boo demee ci afdalu salawaat ala sayyidi saadaat bi bu Yuusuf ibnu Ismaahil Nabahani waxtaane na ko wax ci lu bare bare ci ay ngëneel sëriñ Chouaïbou radiyallahu taala anhu indi na ko ci xoratul ayna waaye moom saraawu ko daf koo indi rek indi yeneen julli la goo xam ne boo ko dee def bu guddee booy nelaw malayka yi dañuy dajaloo tàllal seen loxo ne yàlla dañoo bëgg diw sàngam doomi diw ak diw day julli ci yonante bi di wax sallallahu ala muhammadin dañoo bëgg nga jégal ko suñu borom jégal naa ko ñu ne ko dañoo bëgg nga may ko mu bokk ci agniya yi ñu riche ñi ñu womal ñi mu ne leen boole naa ko ci ñu ne ko dañoo bëgg nga boole ko ci sa awliyaaw yi sa xarit yi mu ne leen boole naa ko ci sama xarit yi te duma ko folli mukk ñu ñu di la tabax lul ay kër ci biir àjjana ay étage yoo xam ne boo demee ba faatu nag nga koy door a gis daal di laaj lu la may lii ñu ne la yaa nekkoon ci àdduna di wax sallallahu ala muhammadin kon julli gu am solo la gu mata bari guddul te am na solo mënees na ci def ay lim yu wuute euh, mënees na ci def 111 téeméer ak fukk ak benn lim bu am solo la 1111 junni ak téeméer fukk ak benn lim bu am solo la 313 muy jëy sun lim bu am solo la 12000 lim am solo maanaam lim yu bëree bëri daal li ci gën daal mooy saxal gi ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na afdalul ahmaali adwaamuha wa in la jëf yi li ci gën mooy lu sax doonte dafa néew waaw kon mbokk yi xam naa dañuy jégalu rek <laughs> di wax salaatu wa salaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ah, jërëjëf euh, mbokk yi daanaka euh, lii ñu fi teewlu képp ku ko déglu rek sa bëgg yenent bi sallallahu alayhi wa gëm naa ne dina yokk ndax wax li mu ci wax yëpp njariñ la ak njariñ ji nekk ci julli ci yenent bi ni mu màggee alayhi salaatu wasalaam kon dina tax maanaam mbokk yëpp dinañ ci gën a góorgóorlu ba tey ñu ngi nekk ak euh, sëñ soo Seck sëñ bi maanaam booy soññi jullit yi pour ñu gën a julli ci salaatu ala nabi noo leen di soññee ndax daanaka daara ji day daara yoo xam ne daa tënkuwul ci génn kër mbooloo la moo xam ne laay mu ngi ci biir ñaseen bi mu ngi ci biir tiijaan bi mu ngi ci biir te ñoom yëpp ñoo bokk alayhi salaatu wasalaam kon daanaka tey boo leen doon soññ nan nga leen gën a soññee ñu gën a mën a tax ci julli ci sëriñ bi dafa wax ne fa kullu man adaamaha fi kulli hiin fa innahu axasa bi hablil matin mu ne ku saxal di julli ci yenn saam jàpp nga ci buum gu dëgër gi alhablul matin nag dama la koy misaalal nela la mooy alquran mooy yonante bi sallallahu alayhi wa mooy lislaam dafa am ñetti tur yoo xam ne jenn jëmm la ma ma jox la ko ci tur al amin mu gën a gaaw gis nga ci ci euh, xasida jësbu sëriñ bi di wax naan sural amin yi mahal amin yi xal amin yi li la fiyaag ñetti amin yooyu yëpp amin la waaye benn bokku ci ak morom euh, surra rañaan na al amin ku ñu wóolu ki mahal amin mu ànd ku ñu wóoli xal amin ñu nekk ci ñu war ci kaw ku ñu wóolu kon euh, bu njëkk bi mooy surra rasulul amin yonent bi mooy ku ñu muhammad al amin moom moo rañaan maa al amin mu ànd ak al aminul wax yi muy Seydina Jibril alayhi salaatu wasalaam fawq al amin ñu war ci kaw euh, al aminul buraax mooy ñetteel bi su ko defee nag bu yàlla di wax ne waatasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu na ngeen jàpp ci mu yàlla gi te bu leen teqale ko alquran mooy alhablul matin waaye al islam mooy alhablul matin inna diina inda allahi al islam wa man yabtaqi gayra al islami diinan falan yuqbal minhu wa huwa fi l axirati min al xaasirina kon lislaam mooy alhablul matin waaye alquran mooy mu alhablul matin waaye yonent bi sax mooy alhablul matin moo tax mu wax ne ku fa ku waman adamaha ku di julli ci rasulullah fii kulli xiin ci bépp waxtu fa innahu axasa bil hablil matin jàpp na ci buum gu dëgër alhablul matin muy buum gu dëgër googu nga xam ne moom mooy alxuraan te mooy lislaam te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee nag kon jullit ñëpp ñoo bokk alxuraan jullit ñi ñoo bokk yonent bi jullit ñi ñoo bokk euh, lislaam su ko defee kon julli ci yonent bi sasam moom moo taxawee jëmmi alxuraan taxawee jëmmi lislaam taxawee jëmmi yonent bi salaasam kon kooku ñu ku ne mën na cee jàpp beneen jàppandal bi ci nekk mooy nangu na ci jaamu yàlla yi loo xam benn jaamu yàlla nangu ndax julli li muy foor foor boo jàpp sañoo julli wala nga tiim mu wutu njàpp julli ci yonent bi salaasam waxtu wu nekk jaam bi mën na koo def te waxtu wu ne suñu borom da koy nangu xeetu jaamu yàlla yëpp muy xaj màkka woor natt azaka lépp lu ñu def boo tooñee nit bu ëllëgee yow man xëyaam dañuy jël jaamu yàlla googu fay ko ko ba mu des julli ci yonante yàlla day wax ne ki nga tooñ man maa lay fay kooku bàyyi ko julli gi moom kenn du ko si seen julli gi moo lay yóbbu àjjana nga xam ne kon jaamu yàlla yëpp moo ci ëpp garanti loolu nag tax na ku nekk bar te ba noppi gën cee yomb ndax waxtu wu ne mënees na ko def boo jaxasoo woon ak sa soxna seetuloo man nga ko ki jógee ci wanag bi amul amul am njàpp mën na ko waxtu wu ko nit ki defee yàlla nangu loolu lu lu kéemaane la moo tax dafa am jagle yoo xa ne moom rek moo am nga julli ci yonent bi saa ñaan ba noppi julliwaat ci moom yàlla day nangu julli gu njëkk gi nangu gu mujj gi ruus a gàntal ñaan gi mu yóbbaale ko kon képp kuy ñaan jëkkee salaatu ala nabi mujje ko am nga garanté sunu ñaan sa ñaan sunu borom da koy nangu comme li yàlla waxoon ne ud'uuni antum muuqinuuna bil ijaabi ñaan leen ma te wóolu ne danaa leen wuyu kuy ñaan boo jiitalee julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba noppi mujje ko wóolul ne sa ñaan sunu borom dana ko nangu kon xam naa foofu la ñuy taxawlu <laughs> ba beneen yoon incha allah rabbul alamin inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما